duñu jiital ki nga xamante ne peut-être duñu wax ni yàlla na yàlla la fa yàlla may njaboot ju baax ju barkeer mhm. ci loolu rek déjà ñu ngi indi di wàññi jigéen di di di yéegal góor te loolu dafay am ay représailles yoo xam ne dina ko def dans le futur mhm. xam nga jigéen ak góor mhm. ay seex lañu donc dañu war a ànd mu am benn cohésion mu am union mu neex muy jaar yoon mais su fekkente ne yow dangaa ne salaamaaleykum juddu rek xam nga ñu ne ah am na baat sax yu mag yi di baatalee soo amee doom domb jigéen ñu ne indil nga ñu nangamtaan bi mhm. loolu da ngay violenter la maman d'abord bi nga xam ne mu ngi door a am doom mhm. mais xale bi di màgg ñu koy màggeel loolu ah yow de diw nangamtaan nga indi mhm. donc yooyu c'est des mots c'est des actes ay doxalin ay jëfin ay stigmatisation ay discrimination depuis que yow ñu nga juddu ba nga koy màggale donc yow sa bopp rek Euh, am nga problème. kon su ma la déggee euh, les mois utilisés dafay nekk loo xamante ne violence bu bu bu verbal wala bu psychologique bu ñuy def nit ki dafay am njeexital ci moom. absolument xam nga forme de violence yi dafa bari gis nga man damay wax ne la violence avant que muy arriver au meurtre am na wooy bu ma ci bind. bindal ko mhm. benn ONG. waa VLF yi dama ne violence balaa moo ñëw ci meurtre. Mhm. dafa fekk jigéen bi muutuwaale na yu bari. di ko nëbb mhm. ndax ndax non réalité socioculturelle di ko nëbb ndax diine di ko nëbb ndax ndax sutura mhm. la muñal mhm. da nga war a am sutura da nga war a muñ soo muñee nga am doom bu baax soo muñee mais doom bi suy baax doo ko fekkee doo ko fekke wala mhm. fekk yow am nga dépression. loolu tam c'est am nga feebar boo xamante ne donc c'est tous ces facteurs là. Mhm. ñoom ñooy indi y a beaucoup de barrières yoo xam ne dafay ne day pousser la fi la femme xam nga sooy muutuwaale. Mhm. da ngay am ay crise vraiment yoo xamante ne daf lay dal. nga nekk ko une personne dépressive xoola tey ce qui s'est passé à Tivaouane nga wax ko. tout xawoon na Kolda. te lépp lu ko waral. te tout le dafay xew. merci tout le temps dafay xew jubawuma ak sama goro jubawuma ak sama njëkk. est-ce que est-ce que lo jubóowu diw jubóowu maag diw war na tax yow nga métital un enfant de rien du tout de moins de quatre ans dama layal dama condamné fermement ces mhm. pratiques là mhm. di massawu ñi mu dal di solidariser wu ak yaay yi ak famille ak képp kuy jigéen rek su yooyu amee dalay metti mais à la base mhm. il faut que ñu interroger wu ñu ne qu'est-ce qui s'est passé à amener cela parce que moment de dépression la nit ki warul layal lu ma kenn. psychologiquement peut-être dafay nekk une personne perturbée mais psychologiquement ci xelu doomu aadama gi. lan lañ ko yenn yow nit ki jural doom. Mhm. ñu jural ko doom jox ko na ko yar. yow kay soo dee rey sax demal si kooku mais nga ne dinaa ko teg métit boo xamante ne ba keroog muy dee métit boobu du teggee ko ci kawam dafa mel ni histoire euh, docteur boobu nga xam ne dafa reyoon ay doomam mhm. rey boppam mhm. ñu ne lu tax reyul ko jigéen ki ma ne li mu def jigéen bi moo raw dee parce que damay wax ne même jigéen ñi nga xamante ne euh, dañ leen di teg ay métital ay violence comme viol ak yooyu mhm. yow soo violé nit ki nga rey ko indil nga ko jàmm waaw soo ko ko noonu indil nga ko jafe-jafe traumatisme façon que mhm. jigéen bi nga xamante ne day nekk si kër déjà ngay sëy rek ñu ne la toogal sa wetu goro nga di ko toggal di ko yekkal di ko fa di ko toppatoo sa jëkkër nekk si beneen région donc yow doo aye régulièrement donc am na lu la manqué ci sa sëy yaa ngi dëkk ak yeneen jeeg yoo xam ne ñu ngi aye mu ñëw tegu ci juboo woog sa wujj sa sa sa sa sa sa goro xam nga ngeen di chaque jour histoire nit ñi di ñëw di arrangé ak yooyu mhm. nga dem nga xalaat nga gis ne kii xoolal ndeysaan ay doomu jàmbur maa ngi sëy fii aw ma doom mhm. ñu indil ko ay doomu jàmbur mu ma koy naqar layalu ma ko de mhm. mu indil ay doomu jàmbur mu am affection si ñoom may xool xale yi buggoon leen jur lool du ñaan yoon yàlla may ma doom lool yooyu nga di ko travailler di ko travailler instant boobu nag su amoon une médiation sociale du ñu arrivé foofu peut-être ça allait atténuer la chose wala duñ fa duñu yegg foofu noonu absolument dëkkuwaay yu njëkk bàjjan nijaay gis nga loolu bàjjanu gox yi mhm. ça a leur sens ça a leur sens soo amee lu la naqari il faut qu'on communique il faut qu'on partage nos souffrances il faut que tu parles avec quelqu'un dénonce mhm. absolument mhm. il faut ñuy dénoncer ñu ma parce que l'absence de dénonciation moo daal indi mon poste je dis dénonçons nous ne dénonçons pas pour ternir l'image de nos familles tout à fait dénoncer wuñu pour yàq suñu deru famille dénoncer wuñu pour accuser gratuitement mais da ngay dénoncer pour am une solution am pexe boo xamante ne dafay yàgg doo arriver à mat xoola yow xale yoo xam xam ne ñu fu ñuy juddoo ay xale yoo xam ne ay innocent lañu ay xale yoo xamante ne ki nga bëgg a teg naqar bi juru leen mhm. waaw xale yooyu li ñu def yow ba nga leen di rey na damay naqaral ñeneen mhm. xam nga loolu ndof la loolu àndul ak wër mhm. moment de faiblesse buy dal nit ki la donc ce qui fait que euh, comme ni nga ko waxee sànq defoo ko pour waxoo ko pour layal nit ki nga xam te moom moo commettre boobu boobu folie